bismillah ca Fall day ngoye ngi lañ bëggoon dégg day loolu lañ dégg de Mbacke Balaye sa Walfadjri ne màggal gu mag gi la 2021 bi ah dama ne leen Touba gale wax nañu dëgg way politique yi te ndajeem cérémonie officielle ba waaw nga xam ne ministre Antoine Diome ministre intérieur moo fa toogaloon nguur ga xalif général mouride di Serigne Mountakha Mbacké jaare ko ci kàddoom gi Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké waaw nee na gouvernement bi organiser leen ay élection yu leer bi muy waa nguur ga opposition bañ a dugg nag ci wàllum fitna lu dul jàmm daal jàmm ko gën te élection yi tamit leer Sud Quotidien ne élection locale yooyee waaw xalif général ba lam wote mooy jàmm rek l'apaisement termine yéene kaa ne Serigne Mountakha yëkkati na kon kaddu ga ci lu jëm ci wàllum élection locale ya tojaange yi nga xam ne kon moom la ñu seetlu ci réseaux sociaux yi lée waaw surtout Serigne Touba bi gis nga élection yii di dikk nii jege lool ah ñëpp xam nañ ne élection yu am solo la ci Sénégalais yii looloo tax nag may sàkku na mbir mi leer dana élection locale yi ak wàllum inondation yi waaw ndigal la jib na al muntaxaa yëkkati ne ko ndigal la Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké nee na xalif généralu murit yi la muy sàkku ci président Macky Sall mooy mu gën a góorgóorlu ci projet yi la lam fi digge woon ci wàllum inondation yi na wàccoo ak moom rek l'observateur ne sëñ muntaxaa jàngale de jàngale de lii ay la de critique yéene kaay réew mi quotidien ak laas waaw nee nañ ko jànge xam ne a a a jàmm daal la wax direct news de maam ja Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké waaw xeex wàllu fitna moo jiitu te kanam juróom fukki atu yàlla ginnaaw Gandhi ak Martin Luther King yi nga xam ne kon dañoo mujj faatu ci xew-xewu adduna bi ab sénégalais jógee ci soufisme ñu teg ne mu nangalu ndogalu borom bi dama ne la gis nga màggal Tuuba gi royukaay la ci adduna wërngal këpp gi nag laa la wax teraanga rek l'observateur ne Abdoulaye Sylla Ecotra waaw xoolal ma bërëbu Serigne Fallou la ci defaraat maa la ko wax évidence yéene waaw waa Touba day mere nañu waa ONAS kay la taalibey mere maar day taali waa orange téléphone ñooñu moom dañoo rate seenu màggal gi laa la wax réseau na leen rey dara kon baaxu fa gis nga budul woon ak yeneen opérateur téléphonique yi lambay ñaaw surtout ane tojaangee ci réseaux sociaux yi waaw fitna gi ci wàllum élection yi ah inondation yi nga xam ni kon dañoo dem Touba def fëkkër bañ faa jugee ba ci ñàkkub ndox mi nga xam ne moom la ñu nimmiku ci màggal Touba gi waa Touba nee nañ loolee na dak basta ci nawet bi lay tombe gouvernement bi war naa def kéemtalaay kàttanam jeexal travaux yi pour lii ñuy dund ci wàllum inondation ca Touba dootu fa amati laa la wax évidence yéene kaay ne en tout cas discours Antoine Diome ministre intérieur waaw dafa mandargaal jege gi nga xam ne kon jege woon na ko Serigne Saliou Mbacké waaye bu dee am na kenn ku nekk ci opposition bi dund ab mbéte goo xam ni ba mu juddoo ba léegi mosu koo dund ci mbéte ci màggal gi mooy président Ousmane Sonko musallami parce que Serigne Cheikh moom Serigne Saliou moo ko invité ngan ci màggal gi ci ay appartement la Serigne Touba bi teral Ousmane Sonko ci ay bernde benn ñaar ci ay xasida ñett Serigne Cheikh mu Serigne Saliou waxaat lam doon wax ne Ousmane Sonko mi la dama koo jàppe comme sama doom terminé ne kaa ne moo taxit sondage ba de Ousmane Sonko topp te ginnaaw Macky aha waaw benn sondage boo xam ne seet info ñoo ko def dama ne la Macky Sall moo jiitu Ousmane Sonko topp te ginnaaw Macky te Macky trois points dong la ko rawee de Bougane Gueye Dany moo jël troisième Khalifa Sall ñëw mooy personnalité politique bi gën a impopulaire ardi Italie la ilaha illallah dama ne la ñaar ñi gën a détesté gën leen a cëpp ci ëttu politique bi Idrissa Seck da cee bokk laa la wax la ilaha illallah ku moytuwul Macky baax na Macky Sall <laughs> waaw fanweer ak benn ci ay faux mariage yoo xam ni kon dañu koo màggal dakk ci ay sëy la ilaha illallah fanweer ak benn yoo xam ni ay faux mariage la boo tënkee lépp de ci ay kayit waaw fanweer ak ñeent ci ay copie yu passeport diplomatique gu Mamadou Sall Boubacar Biaye ak Sadio Dansokho tey député yi lée Alaaji Jaaji Kondé ah xam nga ne la wax takk der ya nee leen ba may xam Mamadou Sall mi de jàngalekat la woon booy benn ñaar te gis nga Mamadou Sall Boubacar Biaye ah dañ doon ñëw ci seeni jabar ak dama koy xam yàgg na mu naan ma nañ dem ma déposé ji ay visa Schengen yéen a kaa gis nga eswage mi ñuy wax ne benn ci ay jabaru la waaw ma ne la maju ma ne la ma ne la la a seeni malaanu kii naa ngi wax ñoom député yi lée gis nga Papa Diop boo gis-gis mais moom it dañ koo war a déglu Aliou Sow ancien ministre ne man kay li may laajte mooy bataaral gi nga xam ni kon moom la ministre affaires étrangères ak ministre de la justice bi eh, nekke bi léegi nii Moustapha Niass nag ak président Macky Sall la may xaar ca ñoom nekkul ay wax nekkul ay communiqué waaye ay comportement ay acte yuy wane ne def lu ne wéngi dara du la ca fekk du fi am wàllum impunité maa la ko wax Pape Mao Diouf Benno Bokk Yaakaar ci Sud Quotidien waaw ne man li ma jaaxal mooy képp koo xam ne am nga ci ay jafe-jafe rek ak justice nga bëgg caa président Macky ba parce que Fatoumata Ndiaye ah, dane ca Benno Bokkum daal la deux cent millions la ilaha illallah fuuta tampi joojee ak Fatmata Njaay xaw ma fuuta tampaani ah waaye convocation yaa ngi mel ni tulleeg ma laa la wax parce que Ñas mi nga ni ca fuuta tampi la bokk waaw Fatoumata Njaay doo yóbbu ca yoon de ndax Ñas mi daa tuumal Fatoumata Njaay fuuta tampi waaw ne ndaw si ndekete daa laal ñaari oto ñu jox xaalis ak kër allahu akbar mu jóge ca fuuta tampi dem ca fuuta tampaani wala fuuta wel le ko dijee ne kaa fukki at juróom ñeent lumb di ko fàttalikoo kon batalo Joola boobee sur quotidien ne fukki at ak juróom-ñeent ginnaaw suux batalo Joola waaw ñu ngi ci diggante fàttaliku ñaxtu yëglu te jamono jooje réew mi quotidien nee na Macky Sall day ca la saax daal di dugg siwaat kon ci Ndakaaru Njaay jël Joob jaar ci aéroport militaire bu Yoff bi lée ca wax bokk na ca terroriste yi continuer rey jàmm ji ci Sahel gi wax na de <laughs> Macky Sall de ak lu mu wax wax wax wax wax wax wax te waxul ci pétrole bi wax bañ troisième mandat dañ ko fi tere te passeport diplomatique yi ak faux yi lée jar sa fàtte rek boo paree ma ne la alaaji tëjal